الحمد لله الكريم سلمنا على استغال بفرود وسنن سكرته لأنه قد ساخني لوطني به نفى ما أنفني وهدني لي ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين بسم الله الرحمن الرحيم بركة الشيخ الخديم jërëjëf sëriñ Touba est sëriñ que Serigne Touba cey Serigne Touba borom Touba moroomantewul bokki jullit yi bokki taalibe yi bokki Sénégal gépp noo ngi leen di nuyu di leen wax asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu ginnaaw bu leen nuyoo ba noppi kenn ku nekk noo ngi lay balwaq te di la baal àq di ñaan yàlla sunu borom ci moomeelam ak sañ-sañam ak mbaaxam mu boole nu jéggal suñuy rëcc rëcc di ko sant nag cant gu dëggu ci nu gu wér ci xol ci làmmiñ boole am yéene jëf ko ci nekk ci li lim digle bàyyi lim tere kemtalaal kàttan di ko ko sante waaye cant yooyu yépp nag yàlla bi ñu la ciy gën a sant mooy bi nga nu booleeg Cheikh Ahmadou Bamba Xaadim Rasul boobu lañ lay gën a sant di la ñaan nag yow mi nga xam ni yaa dul jeexal dara te lu la neex nga def ko noo ngi lay ñaan mu bokk ci lay neex tawféexal Cheikh Mouhamadul Muntaqa may ko fan wu gudd wér eggale ko ay yéenam ki mébétam ci tool lislaam bi muy liggéeyal Serigne Touba te ñun ñëpp nu ànd kook moom bokki taalibe bi yépp te day ci ngërëmul sëriñ bi di ñaan yàlla mu defal na ko tey jii ci àjjuma ji nag fii ci Touba Mbacké Al Mahrousa nu dellusiwaat jataay bi ñu am ak yéen di vingt une heure trente muy neuf heures demi ci waxtu wi ngeen xam ko muy jataay bi ñu tuddee taarixu yoonu murit lépp lu aju ci yoon wi nu dellu siwaat tey ginnaaw bi nu weesoo aju ma jële waxoon leen la nga xam ne ku dem ci jataay booba di nga ko gis leeroon na nañ ci naaj mi nga xam ne moom la tubaab bi yebaloon ca Mauritanie ngir mu faat bakkanub Serigne Touba doon ko jéem rey la ca am ku dem ci ginnaaw ci Saxum Touba rek di ko gis mu ngi ci biir Saxum Touba loolu nag ba mu amee ba noppi tey jii nag mu dikk ak yéen ci beneen ci taarixu yoonu murit muy lu am solo contexte bi laaj ko lool nu dellu siwaat ci fàttali sunu bopp fàttali ñépp mooy lan mooy dafa am xaside Sëriñ Tuubaa dafa bari lool te jataayu murid saadix bi may waajal fan yi ci kanam danaa ci dikk ci jataayu murid saadix ci ak yaatal ci wàllu googu waaye li may wax fii tey rek mooy xaside yi li ñuy bari bari bari li ko tënk rek li ci ëpp mooy Serigne Touba déggul arab rek xam grammaire arab rek yàlla may ko may ak may ci làkku arab rek muy woy di dem déedéet da cee boole loo xam ni forme bi mu doon wooye ak fond bi loolu kenn da cee fekkul Serigne Touba ndax bu alquran jàllee ak hadith guu bi ngay tàqamtiku ak lumière biy dégagé wu di génn ci xasida yi ginnaaw alquran ak hadith amul feneen fu muy génne xasida yi li mu lay xeeñ alquran ak hadith dama ne guu bi nekk ci xasida yi ak lumière bi ci nekk di ci dégagé wu nga koy sentir. bu alquran ak hadis jàllee amul feneen foo koy sentiriti fu mel noonu loolu nag ku dégg arab mën nga ko xoolal sa bopp kon nag ci biir xasida yooyu daf ci am yu ci bari yoo xam ne sax te loolu sax lu naturel la ndax Serigne Touba xasida gii nga xam ne moo bëgg moo moo tax bu bëgg a wax tey di waxtaan ak yéen xasida gi ci arafi alxuraan lañ ko composé. maanaam ci phrase yi alxuraan lañ ko composé ci lañ ko tëggee maanaam ab aaye benn benn benn baatub yàlla bi waxi yàlla suñu borom bi alxuraan moom la Serigne Touba jël tëggaat ci ak xasida kon suma ma la nee lii dégagé wu ci xasida ak guu biñ ciy taxamti ko doo ko daje feneen fu dul ci alxuraan ak hadis amul amul ci àdduna kon li ma doon wax far sama xel dellusi na ba ci biir wax ji sax yàlla may na ma mën koo leeral léegi mooy lan mooy xasida gi ñu yor waxtaane tey bépp jullit bépp murit war naa xam lu tax xasida gi ñu taalif ko kañ lañ ko taalif ak fan lañ ko taalife fan la ko sëñ Tuubaa bindee xasida gi may bëgg a waxtaane tey ci taarixu yoon murit mooy gan wa kaana xaqan alayna nasrul muminina yàlla dafa wax ci alquran ni wa kaana xaqan alayna nasrul muminina maanaam devoir la ci man yàlla man devoir dafa dafa dafa sopp dafa nekk devoir ci man moo war a dimbali way gëm yépp ñi ma gëm ñëpp devoir la ci man ma dimbali leen loolu lay tekki wa kaana xaqan naa moom yàlla nasrul muminina dimbali les croyants loolu la poème bi di tekki loolu ci alxuraan la nekk xaside googu nag moom la Sëriñ Tuubaa moom la war a waxtaane tey te ngeen dégg nit ñi di ko wax saa su nekk di ko jàng wa kaana xaqan alaynaa nasrul na kañ lañ ko taalif kañ la ko Sëriñ Tuubaa taalif fu mu ko taalife nu lu tax mu taalif ko ngir nu gaaw rek jëkkante waxtu wi di euh, dinañ di ngeen ci xam dara ci biir waxtaan wi fan la ko taalif lépp laaj yi ma laaj yépp di ngeen xam tontu yi ci biir waxtaan wi yéen ak Saxum Touba incha xam ngeen tubaab bi bi mu bi mu jëlee Serigne Touba Sénégal ci deuxième exil bi yóbbu ko Mauritanie tukkib ñaareel bi tukkib gànnaar bi bi mu ko fa yóbboo bàyyiwu ko ci benn dëkk da ko doon déplacé di ko déplacé fu mu gën a méttee rek mu yóbbu ko fa bii nu weesu nag kuy topp waxtaan yi may def ci taarixu yoonu murit ak yi ci sàq mi yépp wax naa la ni la bii nu weesu sëriñ tubaa Touba Tintu Muhsin la nekkoon Tintu Mahsin nag tubaab bi dafa yebaloon signé ak benn naar contrat war koo fay cinquante mille juróom juróom fukki dërëm ca jamono yooyu pour mu reyal ko sëñ Tuubaa naar bi naaji la tudd du ma ci del si ndax mi ngi ci ginnaaw mi ngi ci mi ngi ci émission bi ci ginnaaw waxtaan bi ci ginnaaw kon ku ci bëgg lu leer da ngay foofu naaji moomu nag bi mu jógee xumaag fi tubaab bi basé commandant ba fa mu basé ba mu signé moom contrat bu xam ko ne ko boo ko reyee dina la juróom fukki junni jox am lu mu ko ca jox la mu waxante wa tubaab mu dem tintu mu seen fekk fa sëñ Tuubaa nekk fa ba jóge fa loola sottiwul munu ma cee del siwaat wax naa leen ku ko bëgg rek dellu ci ginnaaw nga xool ko ci taarixu yoonu murit bi tubaab bi naar bi del see xumaag bi mu bi mu nettalee tubaab bi yoonam xamal ko ni ko réussiruma ci tubaab bi dafa mer dolli ko ak mbañeel ci sëriñ Tuubaa ndax moom naka jëkk dafa bañoon sëñ Tuubaa ba nu gis ko sax attunu ko mu mer nag ndax naaj naar bi dem na ba ñëw muy naaji te munta rey sëriñ bi ginnaaw loolu nag moom tubaab bi mu ni kon naa ko indi fii moom na ko indi fa mu nekk ca xumaag loolu it am na lu ko waral ndax ca xumaag da di xam ne sëñ tubaab méthode bi tubaab bi doon ji utiliser moom bi mu demee Gabon fu gën a hostile fu gën a bon fu gën a naqaree nekk ci nit fa la koy yóbbu sànni ko fa rab yaag jinne yaag sedd ak lépp fu mu ko yóbbu fu ne fa gë fuy gën a gaaw a rey nit rek la ko yóbbu fa la placé ko fa ci Gabon xam ngeen ko du ma ci dellu bi mu ñëwee Sénégal bi mu ñëwee Mauritanie itam bi mu koy jëlee tintumu seen dani naa ko indi xumaag ndax xumaag gi metti na metti koo xam ni mbooloo mii ko topp fu mu jëm ñu topp ko. dañoo am benn échec ci ñoom seen politique bi ñu defoon mooy defoon nañ ni bu ñu demee gànnaar naar yu weex yi de bu leen nit ñi ñuul ñi jóge Sénégal topp Sëñ Tuubaa gisee dañuy am complexe ndax nit yi diine lañ ñu dem bàyyi fa sëñ Tuubaa toppi naar yi contraire ba nag moo am naar yi di mujj di jébbalu te et quel quel naar giir yi fa nekkoon nga xam ne am na ñoo xam ne ay sorafaa lañ soqi ko ci yonent bi ñu doon ñëw topp sëriñ Tuubaa tubaab bi nag loolu gën koo metti loolu nag tax mu ni ginnaaw man yóbbu mënee su koo rey mënuma koo rey naa ko indi fii xumaag xumaag nag sax watul ma ñépp xam nañ ko nee nañ fa la sëriñ bi gën a yàggee ci gànnaar lu mu bon def na fa ñetti at wala ñaari at ak genn wàll loolu juboo nañ ci ne nañ fa gën a yàggee ci gànnaar ndax nekk na Sarsara nekk na Tintu Mosin nekk na Xubaag Xubaag nag nee nañ fa gën a yàggee ba nit ñu bare sax xam nañ Xubaag ginnaaw loolu nag loolu naar yi doon jébbalu nag di topp Sëriñ Tuubaa di ko doyloo ak échec bi ñu échec loolu tax na mu ne ne ko indi Xubaag. bàyyi ko foofu ndax foofu fu hostile la ak na nekkam foofu du neex lan moo xew nag xumaag bi ko sëriñ bi bi ko naar tubaab bi indi xumaag jële ko tindu moxsin euh, dafa doon loo xam ni xew-xew bu doy waar la mooy jamonoy bekkoor xam ngeen bekkoor jamono ju Mauritanie ci boppam dafa bekkoor dëkk ba metti lool jur gay dee nag yàgg giléem yàgg yañ am yëpp ci jur dee nit ñi sax di am tawat ay mbas comme mbas ni ñu tey tey mbas di fa am ñuy dee nit ñi dee jur ga di dee xur yi yëpp wow koŋ koŋ koŋ amatuñu lu naan mu metti tar lool lool ca xumaat léegi nag bi mbir mi mettee lool am na giir gu ñuy wax alaalawiin ci shérif yi lañ bokk ñu def mbooloo ni léegi dëkk bi nii mu mel ak ni mu mettee nan dem ci Serigne Touba ñaan ko mu ñaanal nu yàlla ngir nu génn ci situation bii nu nekk bekkoor bi ak métit bi ak jàngoro yi ki jiite woon mbooloo bi mooy Mouhamad Ibnul Mukhtar al Alawi al Hasani moo jiite woon délégation ba Mouhamad Ibnul Mukhtar al Alawi al Hasani ba ñuy ñëw nag départ fa jóge di ñëw si xumaag ci Sëñ Tuubaa di ko ñaanloo si. lu jiitu loolu sëriñ Touba woo na Serigne Amsatou Diakhaté ba mu ñëw mu jox ko ak xasida ni ko xasida gi am na mbooloo mu fiy ñëw loolu moo leen di tax di ñëw fii ci man dama bëgg nga doon ci seere jox ko xasida gi sëriñ Amsatou nee bi mu jàngee xasida gi ba mu jeex fekk muy wa kas xasida gu wa kaana xaqan alayna nasrul muminina mu ne ko nag demal nga denc ko ba ñëw mu won ko ko mu jàng ko ba noppi ngeen jégal mu won ko ko mu jàng ko sëñ bi jëlaat ko bañ demee ba bis bi naar yi di egsi sëriñ bi ak suba teel suba teel cuuy jant bi fenk ñu ñëw di jëm si sëriñ bi biñ ñëwee nag ba jub sëriñ bi nag yàlla def ñu nuyoo ba noppi ki jiite woon délégation bi di Mouhamad Ibnu al Muxtar al Xasani jiite woon mbooloom naar yi doon ñaan si ñëw ba egsi sëriñ bi mu wax ci kàddoom moom ki jiite délégation bi. mais ci arab la wax mais ak xasida la ko def maanaam ñëwuñu sëñ Tuubaa di làkk arab mi déedéet ay poème lañ waxee ak moom li ñu doon wut si li leen taxoon a jóg ay poème lañ ay ay ay woy lañ tëgg jox ko sëñ Tuubaa poème yaa ngi nii bayit yaa ngi nii xasida gi ñu defoon di ci wax ak sëñ Tuubaa seen soxla mi ngi nii jamiu bilaadil muslimina juduubu wa amwaauhum qad ammahunna nuduubu nuduubu jamiu bilaadil muslimina juduubu wa amwaahum qad ammahunna nudubu biha jiyaf biha jiyaful hasra fa amma idaamuha fa biidu wa amma jilduha fa saliibu fa hum fi tanaasiratin wa tadabdubin fa fi kulli yawmin rihlatun wa dubuubu wa maa lahumu illa alxadiimu fa innahu makiinun adiimul jaahi laysa yaxiibu lahu tamahat absaaruhum wa quluubuhum wa hallil xuyaara almustaqiini quluubu lii mooy xasida gi dama koo tënk ndax mu nu ma waxtu wi day gudd waaye dinaa leen wax li ci ëpp solo ci liñ ci wax waaye xasida gi moom weesu na lii kon lii la wax Sëriñ Tubaa loolu mooy lan dañ ñu ko réewum jullit ñi yépp ŋëcc na ŋëcc maanaam dara nekkatu fi wow na koŋ xur yi yépp ba jur gi de soppiliku nañ ay mëdd yax yaa ngi weex tal tal tal tal bekkoor bi metti na lool ba egg na ci dëkk bi fi ñu toll ñi fi des sakus néew ñi ngi bëgg fàtte seen borom ndax bekkoor bi ñu ngi bëgg fàtte yàlla seen borom am na ci ñoo xam ne ñu ngi koy bëgg a fàtte am na ci ñoo xam ne ñu ngi deng deng ci seen ngëm am na ñoo xam ne gëlëm nañu loolu nag waral na ku tukki woon wala waral na ñenn ñaa ngi tukki di dem ak ñëw ndax jaaxle guñ jaaxle di génn réew mi di dem ak ñëw waaye ñii tukki ñëpp itam gis nañ ni ku ci tukki fa nga dem mooy tane fii nga bàyyi woon fa nga dem mooy tane fii nga bàyyi woon nun nag jàq nañ loolu jaaxle nañ noonu wa maa lanaa illaa xadimu rasulillahi suñ jaaxle gi nag ak suñ jaax gi amuñu kenn ku dul xaadim rasulullah ndax noonu xam na ni yow ku am ab cër ci sa borom nga te gëm nañ ni loo laaj sa borom dina la ko jox yow wér nañ ni doo laaj yàlla mukk mu dina la delloo ay loxo looloo tax nag bi nu xamee loolu muy lu nu gëm sunu xol ak sunu xel yépp wala dugg jëm si ci yow nu di la xamal nag nit bu gëlëmee fi ko xelam fi ko xolam jubale rek fa la jëm dañoo gëlëm te suñu xol fii la jëmale ci yow kon nag fii lañ jëm si bis noo ngi tàllal suñuy doq nos suñuy jëm si ci yow jox la ko wir nañu ni kenn ku ci nekk wir na ko ni am na lu ko leer ni kenn ku mel ni yow ci kaw suuf ni amul naar yee wax de waxuma noo ngi lay ñaan nag ci xam-xam bi la yàlla may xam-xam bi la sa borom jagleel diglul foofu bu baax moo tax ñuy wax ñëpp war nañu déglu néewuñu ko bi nga bi nga créé de néewu néewuñu ko yaay nàngam de yaa wax ni di de dañu ko xam-xam bi la yàlla jagleel ci ngëneelam yow xam-xam bi la yàlla jagleel wér na loo laaj sa boroom rek xam nga fi nga koy jaar mu may la ko kon nag laajal nu ko. mu teggal ñu sunu lor yi xettali ñu fi si ndax kat yow yaay yow yaay xettali ka kon bi yow yaay kii xettalee lii xettali ñi nga jamono teel jamono yépp mi ngi ci yow amul kenn ku mel ni yow xaadim rasul yow xam nañ ni ku ñu xam ca péeyu bi yàlla ba nga noonu wér nañu ni ku ñu xam ca péeyu bi yàlla ba nga dañuy nangu dogalu yàlla rek lii lépp wax ji yëpp nangul dogalu yàlla dong la du leen naar yooyu li def lépp nangul dogalu rek la waaw gëm nañu it mboolem ñi nga jamonoonteel yëpp yaa leen di rab léegi nag ñun nooy xeetu muhammad sallallahu alayhi wa ñëpp ñëw fii ak ñi egsiwul nooy xeetu muhammad yow yaay liggéeykatu muhammad sallallahu alayhi wa sallam ñun nooy xeetu muhammad yow yaay xaadimu rasulillahi kon nag feeñalal sab liggéey ci xeetu muhammad rasulullah yi noo ngi lay ñaan nga feeñal sab liggéey bi ngay liggéeyal yonent bi feeñal ko ci xeetu muhammad rasulullah yi sallallahu alayhi wa sallam ko giñ naa ni ci dund muhammad al muxtar ibn al alawi al hasani wax de giñ naa ci sama dund gii ni lii ma lay ñaan ci turu mbooloo mii bala maa jóge fii di leen ko am lii rek moo nu indi woon bi mu noppee bi sëriñ bi daa wax am ku ànd ci mbooloo mi ci naar yi benn naar ni ko man de dama bi nu ñëw bi ñu daan ñëw dama gént bi ci guddi ñu won ma benn ayab alxuraan ni ma bu ngeen demee ci Sëriñ Tuubaa bu ko taalifee jox leen ko bu ngeen ko jàngee bekkoor bi yépp dina dem li ma gént ci alxuraan nag ñu ni boo ko taalifee bu ñu ko jàngee lépp dem mooy wa kaana xaqan alayna nasrul muminin lañ ma ne boo ci taalifee ak xasida jox nu ko buñ ko jàngee suñu jafe-jafe yépp jeex sëriñ bi ni bërit fi mu nekk dugg ci biir génnaat fi saase nii leen boo xasida wa kaana xaqan alayna nasrul muminin fraction de seconde foofu moom am na sax ñoo xam ne ci histoire xam nga lu ngay dégg ñu naan sëñ bi fasaase la ko taalif déedéet li lay xamal ni taalifu taalifu ko saas rek mooy bu leen fàtte ni waxoon na sëñ Amsatu avant naar yi ñëw wonoon na sëñ Amsatu xasida gi ni ko damaa bëgg nga doon ci seere loolu moo leen fi indi kon xasida gu kaana xaqan alaynaa nasrul muminina sëriñ Tubaa ko taalif ngir li ak ñaan yàlla mu dimbali jullit ñi fan la ko taalife Mauritanie la ko taalif ci ñaareelu exil bi ñu ko yóbboo ci dëkk bu ñuy wax xumaak fa la ko taalife mu dolli ci loo xam ni moo doon xasida gu kaana xaqan ginnaaw bi nga xam ni Mouhamadul Muxtaar Mouhamad ibnul Muxtaar al alawil xasani mi jiite woon mbooloo mi wax nañu sëñ bi ba noppi xamal ko ni ko nag nun nooy xeetu Mouhamad te yow yaay liggéeykatub Mouhamad sallallahu alayhi wa sallam yaay liggéeykatub Mouhamad yaay xaadim rasul te wér nañ lii lii nii lii nu la ñaan ci sa ci turu mbooloo mi ma ñaan la ko bala nu fee jógee di gën ko defal ci kàttanu yàlla kon nag. mbir maa ngi noonu loolu liñ ci fàtte woon rek mooy xamal leen leen bañ fa daataan jóge fa ñu toog ak sëriñ bi xiinul diful dara asamaan si dafa jëkki sàq sàqi fa saas rek di taw di taw taw boo xam ni lépp coobare suñu borom la dalay fàttali bi yonent bi sallallahu ca Makka bañ demee ba jàq ba jaaxle ngir aw maral wu méttee métti ñu ñaan ko mu ñaan yàlla boromam mu ñaan yàlla boromam taw ba egsi maral wa jeex loolu sangub seexul xadim Seydina Muhammad sallallahu alayhi wasallam def ko ca Makka kii koy liggéey itam di xaadimu rasul bii nga xamante ni bii bokk yooyu ñëw nañ ci moom ba wax ko loolu muy naar yooyu mu wax leen xasida géeg lépp bañ fa daataan jógee xiinul deful dara noonu la asamaan si commencé ca Mauritanie ca Xumaag di sotti di sotti sotti ba naar yi ñoo wëlbatiku wax Serigne Touba ni ko danoo bëggoon nga ñaanal nu yàlla ngir ndox mi taxaw ndax bu dul loolu ay lor dina ci am ngir ndox mu bari loola sëriñ bi daal di ñaan mbir ba daal di yemaat foofa kon loolu itam lépp ci coobare suñu borom la ak waaye yàlla yi nga xam ñooy nit yàlla yi nga xam ni dem nañ ba suñu borom jubóog ñoom ci lépp luñ ko tàllal loxo mu jox leen ko kon loolu it la waroon nañ ko ci leere ni jotaay bi bañ fa daal di jóge fa saase fa la taw ba ko tàmbalee sotti muy waamee woo xam ne kenn xamul nu mu toll ba mujj ñoom ñuy ñaan taw bi taxaw ngir ñu bañ cee loru kon képp ku di murit wala bëgg a jariñu nii la deme kon nag liñ ci dolli rek mooy tey képp ku yàgg ci biir lii mooy histoire xasida ak wakaana xaqan sëriñ am sut nag wax nañ ni bu ko daan nekk li daan na ci wax ni képp koo xam ne da boroom kër bu ndaw buy soog a sos kër samp kër yor soxla saa yoo xëyee nga jàng ko ci sa kër bala ngaa dem fenn bu julli ba noppi suba nga jàng ko nee na xamul lu lay lu lay jaaxal di la sonal de waaye doon ab dépense lu lay lëjal di ab dépense du ca bokk loolu nag bokk yi kon kon kon dégg ko waaye nag bu leen fàtte ni waman yattaqillaha yajal lahu maxrajan wa yarzuquhu min haythu la laa yahtasibu loolu man maa ko mooy yàlla wax na ci alxuraan ni képp ku ragal yàlla dinaa defal porte de sortie boo xam ni xalaatoo ko woon kon kat jàng googu xasida gi itam nag ngir da ngay borom kër bu ndaw di bëgg dépense ngir sa njaboot kër bàyyi waaleel xel di war ngaa ragal yàlla ca la ngay sàkku na nga ko yore sàkkoo mu dagan ak la ngay def lépp te sax ci ndigali suñu borom yi ndax yàlla fii dafay conditionné mbir yi wa man yattaqillaaha la wax ku ragal yàlla yaj'al lahu maxrajan dinaa la indil porte de sortie min haythu laa yahtasib foo ko yaakaarewul dinaa la boo ma ragalee ku ne nag xam na boo ragal yàlla nu muy demee kon loolu dañ ko ci jàngee li ma bëgg a wax rek mooy duma ma ci dolli wax ju bari wala duma ci boole lu bari xasida gi ngoogu fii nu toll ñi naan mbas mi fii la ak mbas mi faa la dëkk bi moom situation bi ci jafe-jafe yi loolu moom du ci sori kenn ku ne mën ngaa analyser mën ngaa xool constater xoolal sa bopp kon man di li may ñaar li may wax mooy ndax doon barkeelu noonu ci xasida ak wakaana xàqan di ko def suba ngoon ba noppi tawasul te xool leen naar yi maanaam naar yi ñëw ñu dañoo tawassul kon xam ngeen ne wasila am na mënoon nañu toog fañ toog ñaanal seen bopp yàlla lu tax defuñu ko dañoo jóge fañ jóge ba ñëw ci sëñ Tuubaa doxale sëñ Tuubaa seen digg ak yàlla nekk wasila mu nekk seen wasila intermédiaire lu tax ñu def ko pourtant ay sëti Yonent bi lañ sallallahu alayhi wa sallam de loolu nag ku dégg rek war nga xam loo ci mën a jànge ndax gëm moom daa am ku muy jariñ ak ku mu dul jariñ gëm ak gëmantu bokku kon mi ngi noonu bokk yi lii mooy taarixu yoonu murid tey moom lañ leen indiloon ci Saxum Touba di leen sant di leen gërëm yàlla nañu yàlla defal dégg ak topp li ci njariñ lépp suñu borom tasaare ko ci te kenn ku nekk gën a fonk xasida yépp waaye gis ngeen gii moom li ko waral te situation laaj na ko ci dëkk bi ak ci réew mi noo de koo jàng bu baax tey sellal te boole ci nag jéem a sàmmoonteeg jëfe ndigal suñu borom yi bàyyi tere bi ragal yàlla suñu borom su ko defee léegi day wàcc xéwal yépp mu bàbbi ko kon mi ngi noonu man nag maa ngi jeexale wax ci ci ñaan ndax awma lenn lu ma ci mën a xanaa waxaat tey xanaa lu gàtt rek euh, loolu sax damay bàyyi bi jotaayu murid saarix ndax waxtu wi day bëri moo day te jege na moo tax bu jotaayu murid saarix bii di ñëwee ci laay waxee lu bari loo xam day aju ci bokki taalibe bi ñun ñëpp suñu digganteeg ñun war a kii daal yowoon ndax du fi xaj li may wax rek mooy noo ngi ñaan ci barkeb xasida gu waan a wakkaat keroog ba naar yooyee fekk Serigne Touba ca xumaag ak seen jaaxle googu ak seen jàqare loolee noo ngi tawasul ñun tim ca barkeeb jataay boobee ak sëti yonent boobee ak naar yooyee ak na Serigne Touba na ko yàlla wuyoo woon ci ñaan googee noo ngi ñaan yàlla nañu yàlla wuyoo ci li ci jëkk mooy nooni Sénégal nooni nooni lislaam yi ne ci biir senegal yàlla nañ leen la siim fi suuf yàlla na lislaam yëkkati ko jëm ci kaw loolu la ñuy jëkk ñaan soog cee teg lu ci sëkk mboolem ñi nga xam ñi ngi taxaw di xeex lislaam ci biir réew mi di làqatu wala di nëbbutu yàlla nañ la siim ci loola te jullit ñëpp yàlla nañ taxaw jëm ci kaw suñu borom yàlla na sotti xéwal yëpp mu baawaan defar may ak wér ak jàmm ak salaam ak sutura képp koo xam nag nekkoo ci loolu loolu animé wu la yàlla na la suñu borom naj fi suuf ba nga naju ba ni mes waaw ma ngi koy ñaan yàlla suñu borom te am na ci droit nag. képp koo xam ne rek jugoo ngir taxawal lislaam te loolu réew mi ci la dimbali réew mi la jàppale jullit ji la képp koo xam ne yaa ngi pexe pexe moo mën a pexe rek ci biir réew mi yàlla nañ leen di gis benn par benn rek ñuy salfañu waaye ñun jullit ñi itam nag nu góorgóorlu li nga xam ne mooy nekk ci li nu war bëggante def suñu bopp benn laa ilaha illallah muhammadu rasulullah loolu itam nag ñu jëm ci góorgóorlu jërë ngeen jëf noo sant sëñ Tuubaa bu wér a wér wér jërëjëf sëñ ci liggéey bi wasalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakatu الحمد لله الكريم سلمنا على استفاد بفرود وسنن سكرته لأنه قد ساهني لوطني به نفى ما أنفني